sëñ bi Palla Mbengue ñu ngi lay nuyu di la dalal. ñu ngi leen di yow nga jiite patronat des agences de voyage du Sénégal ñu gën ko xamee PAVOS euh, tey ñu waxtaanee ci li nga xam ne moom mooy aji màkk gi atum ren mu bëri ay innovation voyagistes privés yi ñu jox leen lu toll ci 3822 euh, ci ay euh, ñi nga xam ne ñoo war a def mission bi ngir ñu séddoo ko ak nu ñu bëree tey ban commentaire nga ciy def. ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne sunu Serigne Seydi Aboubacar Sy di ñaan yàlla yàlla yokk leeram te taaf ñu ci euh, di gërëm nag président de la république parce que bu waxee aj ren ba mu ba a nekk nii rek jàpp ne président de la république moo ci jàpp moo tax mu mën a mu ñu ko wax donc ñu koy gërëm di ko sant di sant aussi ministre des affaires étrangères bi nga xam ne mooy suñu ministère de tutelle ci aj mhm. donc parce que cër ñi wooñu waxtaan ak ñun mhm. balaa lii di génn li ci nekk yëpp ba ñu xam ko ñu jox ko suñu xalaat mu boole suñu xalaat ak mhm. mooy li doon wax démb mhm. kon jàpp nañ ne aj dana am ren bon quota Sénégal am dafa nekk ci euh, cinq mille huit cent vingt deux sur les cinq mille huit cent vingt deux l' état moom dafa jël li doon jël rek deux mille la doon jël te état it nañu ne moom lu Sénégal mën a am deux mille yi doon jël lay jël daf ñu koy jox ak nu mën a kon jàpp nañ ne loolu état waxoon mooy euh, a baax bu aj amee ren rek jàpp nañ ne daf si jàpp bu baax a baax waaye nag li ñu xaw a jaaxal nag mooy président moom euh, état moom fan la jëlee prix bi mu a joxe mm-hmm. parce que ñun jàpp nañ ni euh, ci ay hôtel la ñuy daal. Mm-hmm. ba léegi nii xamaguñu Air Sénégal bi ñaata la ñuy coûter. Mhm. moo tax ñun mënaguñoo def suñu package. d'accord parce que package bi euh, euh, avion bi ci la bokk. Mhm. te ñun xamaguñ ko. Mhm. état nag mooy état état it li mu mën état rek ko mën. waaye ñun daal jàpp nañ ne ñu ci diggante entre cinq ba six millions. ci li ñu xayma. ci xayma léegi nag ñuy xaar bii d'avion bi ñaata lay jaar te xam nañ ne président dana ci def xéewal mhm. bu ci defee xéewal mooy tax moo tax sax ñu nekk ci diggante boobu mhm. donc euh, xam naa ne sous peu de temps dinañ ñu ko mhm. a defar suñu ay package yi incha allah mais tey jii est que loolu dina leen arranger c'est vrai que xamagu leen euh, fu ngeen jëm ak ci li ngeen di jàpp ak fi ngeen di taxaw mais bon euh, ak ni ngeen gisee changement yeeg yooyu forcément dina am répercussion waaw xam nga balaa ñuy wax voyage justice privé dañuy wax pèlerin d' abord. Mhm. parce bu pèlerin amul duñ doon voyage justice privé. Mhm. li ñuy def voyage justice privé mooy pèlerin. kon pèlerin boobu d' abord. Mhm. boobu mu nekk ci condition yu baax. pèlerin boobu mu nekk ci euh, ñu jox ko service yi nga xam ne moom lay jënd parce que pèlerin bi service lay jënd. mooy encadrement religieux. am médecin bu leen di topp di leen xool. ak administration boo xam ne mooy toppatoo seen këyit. yan bus la ñuy dugg yan avion la ñuy dugg loolu mooy pèlerinage c'est une organisation. Mhm. donc service boobu la pèlerin bi jënd pèlerin boobu nag service de qualité la soxla. qualité boobu nag yow yaay xam ñaata lay jar boo xësee nag lii lay jar ba mu jox la ko a ah dafa jënd service service boobu da nga ko koy jox kon donc jàpp naa ne. Euh, condition bi pèlerin bi nekk boobu moo ëpp solo. Mhm. te boobu la ñu gën a gën a gën a gën a gën a gën a yaakaar. nga jàpp ne Arabie Saoudite lan moo waral mu jël dogal yi dañu am ci lu ñu nekk. Mhm. loo xam ne man boo gisee wax naa keroog ma wax ne benn dootuñu dëkk ci ay kër ci ay hôtel la ñuy dëkk. Mhm. lool wax naa ko. Mhm. tey jii c'est avéré waxoon naa ne pas moins de six millions tey état génn quatre mille deux cent yu avion bokkagul defe naa soreeguñu li ma waxoon. kon jàpp naa ne sore li ma waxoon. la ma doon wax nag ci xam-xam laa ko teg. ba tey ji teguma ko ci foog naa wala dégg naa dama ko teg ci ay lu wóor mm-hmm. kon jàpp nañ ne Arabie Saoudite tey mm-hmm. dana ci àdduna bi yëpp un million mm-hmm. de personnes ñooy ñëw aj mais Arabie Saoudite si un million de personnes yooyu tey si wàllu li mu doon am ci xaalis un million boobu de personnes buñ doonoon un million trois cent dina ci bu ëpp li mu doon am ci xaalis organiser nañ ko depuis trois ans ñoom ñu ngi ci organisation yooyu maanaam tey un million de personnes moo gën a neex a encadré. Mhm. moo gën a neex a sécuriser. Mhm. moo gën a neex a defar lépp lépp lépp lépp. Mhm. kon dina resté si un million de personnes boo xam ne dina gagné cent cinquante mille si un million de personnes. kon gain bi yokku na ci li muy am. beneen bi mooy dafa am ñu fa def ay investissement ci ay hôtel yoo xam ne si cinq ans yi passé mën naa jàpp la fa yokk ci ay hôtel quatre vingt pour cent par rapport ak la fa nekkoon. loolu foog ñu rentabiliser ko parce que c'est d'hôtel d'accord yu dool la kon ñooñu foog ñu rentabiliser investissement moo tax kër yi ñu doon dal cee dal ñu léegi ñooñu kenn agréetu leen parce que ñooñu euh, li doon ëpp moom lañ le doon jox comme ëppatul te xaalis bi reste le même te hôtel yi mën koo jël kon kooku ñooñu déjà ñu ngi privilégié di pour que les investisseurs ñu rentabiliser seen investissement loolu nag lañu ñuy demander état du Sénégal mu xool agence de voyage yi mu encadrer leen jàppale leen pour que agence de voyage yooyu mën fexe ba rentabiliser seen investissement. kon daal euh, ci gàttal. Euh, uh-huh. ñoom dañoo wàññi pèlerin yi waaye dañoo gën a yokk njëg yi su ko defee lépp lañ fa investir ñu gis ci rentabilité. mais loolu lañ def c'est exactement ça. Uh-huh. waaw c'est exactement ça parce que euh, kër yi ñu doon jox ay nit. Mm-hmm. ñu di ci dañee mm-hmm. léegi jox nañ ko hôtel yi mu gën a cher ba pare te nous sommes obligés ba pare ñu wàññi nombre bi et rester dans le même parce que taxe saoudienne wàññeekul mm-hmm. cinq pour cent yañ fay fay voire dix pour cent si taxe yi ngay fay dara wàññeeku aussi ba pare ñu privilégié nag léegi société yi formel transporteur yi fa nekk du transporteur kalando ay transporteurs yu formel la ñuy agréé d'ailleurs boo duggee si portail bi yooyu yëpp si portail bi nga koy kon kay ñooñu sont agréés. ñooñu every time saa yu ne dem ba xam ne booy umra ji. Mhm. à aj booy umra ji. Mhm. yow yaay inscrire sa bopp. t'as pas besoin de passer par agence de voyage. yaay fay sa hôtel comme booy dem États-Unis comme booy dem Dubaï booy yaay réserver sa hôtel si booking. Mhm. nga dem Màkka dem def li ngay def yëpp c'est que si biir système lay nekk. d'accord parce que yàlla système tawakkal naa boo demee yaay inscrire ban heure ngay julli ji ban heure ngay tawaaf ban donc dafa gën a de te ñun ñi dinañ jël ay techniciens. Hmm. yoo xam ne da ñoom ñooy mën a defal pèlerin yi technique boobu. donc yaa ngi koy wax tout à l'heure sax dafa am neneen ni ngeen soppee euh, xar kanam maanaam di réorganiser waat di former ñi euh, ngir gën a mën a am euh, taxawaay bu mat. waaw moom laay wax sànq ne ñu ngi gërëmaat président de la dafa def maison du pèlerinage jox dana ko tabax. Hmm. mais loolu lañ ci gën a jublu mooy lépp lu nekk autour du pèlerinage day nekk foofu même des DGP seeni bureau foofu lay nekk. Hmm. mais centre de formation yi foofu lay nekk ba nga xam ne ku bëgg demati Màkka da ngay inscrire non seulement un an avant ba pare nga dem ñu former la ba pare jox la attestation de formation. nga door a ñëw ñu confirmer la lan lañ lay former noonu. mais aj dañ koy former nit mu xam ko. d'accord xam nga benn bi jiitu mooy. Uh-huh. Sénégal ñu naan aj social la. nañ ci def yërmande. waaw mais aj du social. que ponk la boo xam ne dafa conditionnel condition bi mooy lan mooy nga man ka. d'accord nga man ka mooy nga fay say bor. Mm-hmm. nga bàyyi sa njaboot lu ñu dundee déwén ren ba déwén. Mm-hmm. nga tàggu say dëkkandoo baalumte àq ba ñu baal la àq. Mm-hmm. donc ba pare nga mën faa toog yow yor fa sa bopp si condition yoo xam ne lépp lu mu laaj ci alal joo ca joo fa war nga yor ko. donc loolu bariwul koy def fii bu fekkee am na. loolu bariwul ñu ko xam ñi ngi dañ defe ne sax aj dañ la ko war a sarax <laughs> da ngay kuy yalwaan aj màkka aj màkka ken du ko yalwaan dañ na nga mën ko waxuñu ko ñaan ko waxuñu ñu may la ko donc loolu yëpp nag fokk fokk dañ koy dañ ko day bokk ci formation di ko ci nit ñi di tàggat ci nit ñi ba nit ñi xam la mais xam nga nga dem ba arafa nit ñëw ba biir arafa toog hmm. tàllal ay tànkam jël téléphone am bésu arafa bésu ñaan ak légion du soleil sana ngay toppatoo nag wu ñu war a leen di fii si si si si si si sa si sa teeru kooku xam nga kooku mu ngay waxoo teeru wala ñuy mm-hmm. selfie voilà wala ngay selfie parce que boo demee ba war a toog ba su arafa yor yor sa téléphone amoo teewlu gu toll ni yaa ngi sinap mm-hmm. kooku mooy xamul li mu xamul xamul xamul li li mu nekk nag am ko te xamuloo ko xam ko di wuti sax ko gën <laughs> kon yooyu yëpp mu ngi biir et danañ ci waxtaan njiitu réew mi. li muy def yëpp c'est très bien mais mu aboutir si foo xam ne njariñ lay doon. d' accord loolu ñu ñu ngi ciy di ci sant. nga jiite patronat des agences de voyage du Sénégal mu am benn waxtaan bu ñu sekkoon ay at ci ginnaaw tey waxtaan boobu dellu si waat ñu gis ne diggante patronat du tourisme ak ministre euh, du tourisme ci boppam mbir mi dafa mel ni lu xajam ndax kat ñoo ngay euh, jiñante ku ci nekk euh, jëm ci crédit hôtelier bi tey yéen ñi ndax débat bi justement gis ngeen ci seen bopp. waaw xam nga nag man santaat naa yàlla parce ma gën a yàlla. Mm-hmm. mooy ñaare daal bu ma waxee dara buñ toogee ba ca kanam dina dellu si loolu nag dama ciy sant yàlla du sama xam-xam du dara dama doon wax sama xalaat rek mu ñëw mm. mais tey ministre bi ay xaritam lay jotal de ñoom ñoo jotal de ñoom seen i xarit ñoo jotal neen la ñoomi neen la ah, parce que joxoon xaalis mm. ñooñu la doon woo ñooñu la ñooñu tey ñoo taxaw jàkkaarloog moom di ko yàq mbelangaan <laughs> te jàpp ngor mayewul man day paala mbeng sama ngoor mayu ma ma ne kii sama xarit la ah. bu ma d'accord wax moom ma ko mm-hmm. dama jàpp ne bu ma nit du ba ne diw sama xarit la mm-hmm. wala diw sama nita wala diw kat noo bokkal yi man jàpp naa ne du ci mbedd mi lañ koy waxee dañuy dem ñun ci suñ biir ñu toog waxtaane ko mm-hmm. waxtaan waxtaan bu sottiwul ñu seet sax ku dox suñ diggante waaye nu suturaalante waaye tey da wan ne rek les les ñi ñoo ñuy wax noonu ce qui les intéresse c'est leurs intérêts Mm-hmm. seen i intérêt rek moo leen intéressé. kon yéen euh, yéen débat bi daal yéen seen yoon nekku ci. waaw ñun débat bi suñu yoon nekku ci ñoom daal ñoo dugg ci seen seen seen seen seen seen seen seen ñoomu neen la <laughs> parce que xam nga tey ñu toog méridien wax lañu wax. Mm-hmm. wax ko ci ministre bi wax ka Sénégalais yëpp dégg leen. Mm-hmm. même pas quarante huit nga dajeeg ministre bi ne maa ngi réitéré maa ngi confirmé ne sama xarit la. maa ngi confirmé nit ku loyal la maa ngi confirmé nit ku baax la. mais loolu loolu yëpp sénégalais yi la. <laughs> loolu yëpp lu sa bopp la. ba pare yëpp seen gis nga ni day constant. Mhm. man bu ma d' accord ak yow dama naan d' accord ak yow. Mhm. te bu ma xasee ba ne d' accord ba teg ko ay 48 heures après nga mel ni du loolu nag dafa loolu dafa am lu muy wane mais ministre bi na si jàngat comme daal ñoomu neen la ñoo seetloo woon seen xaalis. Mhm. ñoo seqoon seen seen xaalis ñoom neen la nañu régler seen problème. ñun duñ ci wax duñ ci dugg waaye daal ministre bi nag woo nañ ci diggante bi. bind nañ ko mu recevoir mais ndax jot ngeen sax ba fi ñuy wax ni ba ñuy séddaale seen xaalis. léegi comme ñoom ñoo ko séddoo woon. ñoo doon favorisante ñoo doon priorisante. tey jii ñoom ñooy xuloo ñun boobu duñ ci wax duñ ci dugg. léegi ne ministre bi recevoir na leen xanaa yéen ñu recevoir en fait c' pour arrondir les pour que mu ah. comprendre li doon wax lan la parce donc buñ ko bindee te tontu ñu dafay mel ni koo xamante ne saa day jàng alxuraan te du julli. d'accord bon loolu waxoon naa ko newoon naa ko ñun tu es pour nous. Mhm. buñ la woowee buñ la bindee da ñu war a tontu. Mhm. buñ demandé audience da nga war a xool nan mën a fexe ba recevoir. Mhm. mais ñu di wax nga mel ni ñiy wax yow tekki ñu dara waaye ñi yow dëkk ñu si dëkk bi te nga te nga jiite li ñu bokk. Mm-hmm. donc ñu ne ko ñu rafetlu ñu loolu waaye nag wax dëgg yàlla arrondi nañ ay angle yi ba waxtaan mais tey daal li ñu seetaan. da ngeen ay téléspectateur lañu dañuy seetaan ñun duñ sax àtte parce que nag buñ duggee si àtte bi dañuy àtte lu xamul. donc nañ leen seetaan rek bu ñu mbëkkante mbëkkante ba kii uh-huh. bu ñu paree ñun ñu ne ah, gisoon nañ nangam wala déggoon nañ ci nangam jeex na parce que Sénégal aussi il faut que ñu régler secteur yu bari dañ leen di concurrencer. Mm-hmm. bu déloyale. Mm-hmm. même seen métier bi léeg nga gis nit ñoo yor dictaphone am tàllal la ko day ne waaw maa ngi bokk du wax sax organe bi mbokk. Mm-hmm. ne daf lay interviewer pour bu fayee nga may ka paas. 5000 ba nga jox ak 10 000 ba. donc yooyu foog ñu régler ko. foog ñu réglé ko am na ñoo xam dañuy yor seen dictaphone rek ñëw taxaw. Mm. ñeneen sax léegi seen téléphone lañ yor. dëgg la ñëw ne la waaw man nangam journal bi lay wax ak wala site lay wax xamoo ci dara. mais fekk moom dix mille euh, koy may paas moo ko si intéressé. la dëgg donc euh, fii aussi concurrence bi dafa déloyale màkkat yi ñuy wax ni association yi ci nekk. Mm-hmm. mais cest dire une association à euh, à but non mm-hmm. association warul def bénéfice. donc loolu yëpp nag ñu ngi demande à l' pour que yooyu yëpp mu def ay Arabie Saoudite tey jii li mu def nii rentable ñi dafa def investissement mu ngi leen di mu ngi leen di sécuriser pour ñu rentabiliser seen investissement. Mm-hmm. Mm-hmm. mu ngi leen di sécuriser pour ñu rentabiliser seen investissement. kon donc man jàpp daal yëf daal moom. Mm-hmm. Sénégal nañu ñun daal xalaat biñ ci am li ñuy wax nag. li tax ñu nangoo wax di wax. jubluwaay bi wallaahi la azim defar rek lañ ci jublu suñu intention mooy mu baax. dëgg la waxeewuñu pour amuñu amuñu sax lu ñu personnalisé. amuñu cible. yàlla seede na suñu cible yëpp ak suñu intention yëpp mooy mu baax. Euh, ñu mujjeek euh, li nga xam ne moom mooy seen secteur bi justement ay at a ngi nii euh, gannaaw Covid bi tey guerre Ukraine crise économique mondiale moo am. yéen tey mhm. nu ngeen koy dundee juste ci quelques simili ñu xam seen situation fu ngeen ne. mais dama ne ñëpp koy dund dund bu méttee méttee xam nga boo gisee ñu ngi remercier état. Mhm. ba package bi mu génn donc loolu moo lay wan ni ñoom. wax dëgg yàlla ñu ngi fexe ba sénégalais yi mën a mën a aji. Mm. mais ñun à notre niveau yaakaaruñu ne ci aj bii. Mm. danañ ci am dara waaye ñun dañ ne nañu stabiliser rek. Mm-hmm. ba bi parce que ñun pèlerin bi lañ d'abord euh, dañ jàpp ne pèlerin bi nga yóbbu ren. Mm-hmm. jox ko service bu baax. Mm-hmm. c'est un concurrentiel. pèlerin bi day gis keneen ku dem feneen. ñoom ñaar ñu waxtaan mu ne ah ñun ci condition yi lañ nekk kii nekk ñun ci condition yi lañ nekk. dëgg la d'ailleurs ñun foofu la ñu privilégié ba moo tax tey fii may waxee ak yow nii nii la ñuy ñu ngi balayee daanaka fees nañ ci en deux jours. d'accord wallahi fi may waxee nii si ñaari fan démb lañ ubbi tey jii fi may waxee ak yow nii balay quinze heures dañ clôturer. balay 15 heures danañ arrêté ñun suñu aj ci suñu nombre. te parce que suñu pèlerin moo ñu ñu bëri dañu inscrire woon nekk en attente di xaar. Mhm. démb bi ñu lancé affaire bi fi may waxee yow nii léegi ñu clôturé. Mhm. parce que jàpp nañ ne service bi dañ li ñu ji jiital mooy def service bu baax même si c'est cher. Mhm. si c'est na service bi méngoo ak li nit ki fay. d'accord mais nit ki mënul fay fii lii keneen fay la lu ëppale ñu dem mu nekk même service loolu moralement warul mu nekk. dëgg la. donc moo tax ñun bu luñ la fay rek boo demee di nga service am parce que suñu pèlerin ren moo ñuy indil suñu pèlerin déwén. d'accord loolu service moo koy def si tu mets un service de qualité. Mhm. tu tu différence. Mhm. mais bu ne da nga bëgg a encaisser lu bari war ne li nga war a ba déwén ci at yi nga ko a amee doo def service bu baax. ça mhm. moom c'est service après vente. ah service après vente donc. <laughs> ñu lay ñun service ñun moom la ñuy def ñun on fait service après vente. d' accord ñu lay jaajëfal bu baax a baax. sëñ bi waaw ñu ngi leen di fay bu baax jërëjëf kontaan nañ merci jërëjëf. merci beaucoup kontaan nañ merci jërëjëf. merci beaucoup kontaan nañ merci jërëjëf.